SATV, rek tontu la moo tax am na yoo dox yoo xam ne jarul ñu ciy perte suñu temps nit bu amatul lu muy wax nit bu daanu ci saret moo nekk ci waxu ñàkk fay doy Sénégal dafa dépassé ba bu yàgg fii lébu yaa ngi ñoom looy ak yooyu bëri nañ fi sekk ak ñoom seen euh, pël a ngi fi tukulóor a ngi fi olof a ngi fi joolaa ngi fi mankaa fi lépp a fi li ñu boole mooy Sénégal ñun Sénégal rek la ñu gëm yàlla ba muy tànn Sénégal pour kenn ku ne ci ñun laaju la bu ko neexoon tey maam daam nii Japon lay judd tuddee sing sing xaw ma lan mais moo ko tànnal Sénégal tàmmal ko tànnal ko tuuba jël keneen tànnal ko Bunkini waaye ne leen yéen nag yenn bokk destin kenn mënul dem bàyyi moroom day baax pour ñëpp wala mu jaxasoo pour ñëpp loolu bu ñu ko kenn yàqal am na ñoo xam ne rek xam nañ ni ñàkk nañu ba nopp nu ñuy def ba xajamal cere gi pare nañu pour taal réew mi pour rek bañ fee bàyyi lu baax loolu mooy mbon parce que nag ni ñu def ba ba yow nga jot am réew moo xam ne waasoo amu fi euh, waxu diine amu fi waxu âge amu fi soo doon ku baax noonu ngay def ba sooy dem nga ba fi loolu kon loolu ñun ñëpp dañu am hauteur bu ñu fexe ba dugal ñu ci loolu fii ñi fi nekk diine yëpp a ngi fi tarixa yëpp a ngi fi noonu la ñu boolee diine yëpp jox leen cër noonu la ñu jëlee tarixa yëpp jox leen cër def leen suñuy tarixa kon bu ñu kenn dugal ci seen wax yooyu nga xam ne amul bopp amul genn te lañuy def nag seen bopp lay mujj la septima de la